jërë ngeen jëf keroog talaata benn fan ci weeru novembre gi weesu ñetti téeméeri kilo cocaïne yi douanum Sénégal jàppoon ci kii di la l'observateur mi ngi ñuy xamal la ca xew dëgg-dëgg pil yéene kay bi ci enquête bi takk der def ci la ñu ne ab organisation criminelle bu fekk baax ca Mali ñoo nekk ci ginnaaw am na benn doomu Sénégal bu ñu naan AB Touré bu ci bokk entrepôt bi ñu bëggoon denc drogue ba moom waa ji moo ko luye woon ci bu Pikine ci fukki million ak ñaar teg ko loxo ñoo ko jàppee ci Géejawaay ci enquête bay ci la ñu ne drogue bu bari bi ñu fi jàppoon ca poorum Dakaaru 2019 loxob bi moom am na ñaar ci ñoom ñuy teg loxo dañoo fekk bande de filao bu toll ci juróom-ñeenti hectare ñu gor juróom-benn hectare ngir jox ko benn promoteur immobilier premier adjoint bu meeru Kayar ak promoteur bi ñu bëggoon jox pàkk yi jàpp nañu leen ba war leen a defere ci li ñu leen jàppee suur soit ne nañu bokk na ci signé ab convention bu maire ba yëgul bande de filao yooyu ñu doon gor bëggoon koo di fi kër yéenekaay bi mi ngi ñuy wax li mu mën a jur ci ay loraange kenn xamul nu mu toll ndax bu ñu demee ba ay filao amatu ñu gi géej gi dafay taañaañal dem nangu ji dëkkuwaay yi usine bii di Touba Protéines nekk ci wetu géej gi mën nañoo dégg ne géej ga nangu na ko ñu nangoo ci xët mu njëkku libération leneen coow lu ni mel ab immeuble dim taax mu ñuy tabax ci corniche ouest bu ndakaaru bi te tegawul ci norme yu ñu santaane dëppoowul ak règlement urbanisme yi jaaykatu ceeb bu mag bii di Moustapha Ndiaye yéenekaay bi nee nañu moom moom ba waa Descos dem nañu fa ñaar yoon ngir dakkal travaux yi bi ñu sisiré mairie bu Mermoz Dakar Sacré-Cœur mairie ba dafa dellu gannaaw ci autorisation construire bi mu leen joxoon yëf yu gi am fan yi ci njëgu courant bi Pape Senelec mi ngi ciy indi leeral ci Soleil national directeur général bu Senelec bi nee du client yëpp la yokk gi concerné ñi ñu naan ay client domestique téeméer yoo jël ci ñoom juróom-benn fukk ak benn mu di seen njëgu courant du yokk client transsocial yooyu nga xam ne seen njëg du yokk Pape Mademba bi tey nee toll nañu ci benn million ngi doomi aadama ak lu teg 1 million 559 mille 146 bind na njiital këru courant gi ci réew mi di Pape Mademba bi paas bi ci auto transport yi pression la bu transporteur yi teg ci kaw gouvernement bi ginnaaw mesures yu yees bi jël ci transport bi waa ji di Mbaye Amar jiite kuréelu transporteur yi di aftu nañu ci journal bi téeméeri transporteur yiy jël juróom-ñett fukk di yi d'accord nañu ci ñu yokk paas bi bés bi le jour dolli ñu ci ne borom car yi ak borom kalando yu ñoom teg nañu seen tarif yi bopp état bu Sénégal ak dogal yi mu jël ci transport bi ak genn wàll du ñu nangu ngay daw diggante 6 heures ba 10 heures wala 16 ci ngoon jàpp 20 heures kay nañu état bi taral na mesure tengal na ko ba mu teng nee na fu 11 ci guddi jotatee gaaru ceer yi ci réew mi nañu leen tëj l'observateur ne ko boole ceekit sëfër bu ñu ci aaye daw guddi diggante 23 ba 5 heures nga bañ xëtt ndigal bu ñu la jàppee dañ lay wàcce tali bi nga gaare ca ga fanaan fa ba suba